ma jottali leen asalaamaaleykum ma jottali leen eh, xibaar bi bàyyeekoo ci ministère bu dënk wérgu yaram askan bi tey ci bësu dibeer ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru atum 2021 ministère bi ñu dënk wérgu yaram askan bi jot na résultat examen birologique yi may waaja lim ci ñaar junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett test yi ñu jot a def ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif maanaam téeméer ak ñaar ka contact mooy ñoo xam ne dañu jaxasoon ak ñu amee doomu jàngoro amul benn ka importé téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn cas issu de la transmission communautaire maanaam ñu amee jàngoro bi te xamuñu fu ñu ko jëlee ci ñooñu ñaar fukk ak ñett. dañu nemmeeku ca Kaolack fukk juróom ca ca Thiès juróom ca Linguère Médina ak Touba ñeent ca Géejawaay Liberté 6 Mariste Wakam Rufisque Sicap Baobab ak yoof ñett ca Diamniadio Fann Résidence Guinguinéo Kër Massar Mamel Mbour Ouest Foire Parcelles Assainies ak Tiwaawan ñaar ca Diamaguène Grand Mbao Kaffrine Mermoz Ngor Pire Diofior ak Sicap Mbao benn ca Almadi Bambilor Bel Air Cité Fadia Cité Mista Cité Murtada VDN Dakar Plateau Jaxaay Jamalaay Diass Diourbel Golf Sud Goudiri Hamo 1 HLM Grand Médine Koki Kolda Kounoune Liberté 1 Liberté 3 Liberté 5 Matam Nioro Nord Foire Pikine Popenguine Pout Sacré-Cœur 3 Kon Saly Azur Vélingara ak Zambaaw téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñaar malaat ñi ci hospitalisé woon wér nañu bésu tey juróom fukk ak benn malade ñoo ngi réanimation juróom benn malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb gaaw ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2021 ñeneen yi des hôpital ñoo ngi tane ci bésu tey dale ko ci kaabu njëkk Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak ñeent ak juróom-ñaar téeméer ak positif ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn wér nañu juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñàkk seen mu des ñetti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci hôpital ministère bi ñu dënk wérgu yaram askan bi mu ngi ñaax askan wi ñu sàmmoonte ak digle yi joxe mooy profito ci antenne bi di wax ak askan senegal ne leen ni jàngoro bi mu ngi law fi mu ne nii ci askan bi li ko mën a dàgg nag mooy askan gi ci boppam jóg ci comme ni ñu ko defee woon ci njëlbeen ñi defaat ko noonu maanaam ñépp sàmmoo ak takk masque ak raxasu ak dandante mais aussi ñi moytu dajaloo moytu dajaloo ak wàññi déplacement yi ci loolu ñoo ngi ñaan ñi nekk ci école yi maanaam directeurs yi proviseurs yi ba ci université ñi ñaan ndongo daara yi ñu sàmmoo ak digle yi ñuy takk mask ndox ak saabu walla di jël gel hydroalcoolique continuer di dandante di moytu dajaloo bi loolu itam ñu ngi koy ñaan ci transport bi biñ ko waxoon démb noonu lañ koy waxat transport bi passager yi ñu ngi koy ñaan aussi waa kër taskati xibaar yi niñ ko defee woon ci njëlbeen jàpp ci xeex bi ba léegi ñu ngi ci ñi gën koo dooleel ndax dëkk bi fépp fuñ ne ñi mën a xam xibaar yi am ci mbas mi ñi mën a moytu ndax mbas mi dàgg naam vaccination baa ngi ñëw waaye mën nañoo góorgóorlu ba mbas mi wàññeeku baax a baax a baax nga xam ne vaccination bu ñëwee da koy dooleel rek wasalaam ñoo ngi leen